jëmmi gàmmo gi waaye jëmmi weer wi rek sëñ bi da koy fonk xam nga sëñ bi weer yi mu gënoon fonk mooy weeru gàmmo weeru koor weeru safar waaye weeru gàmmo bu ñëwee day wax ne raxabtu taadiman bi chahril muntaqa alay taslima munir taqa basharta yaa rabia kulla di tuqa yaa sarfa nuuri wa sifaayi wartiqa yaa man xabaana billadi lam yuxlaqa nadirahu wa abadan lam yuxlaqa weer yu ñëwal mun seentoo weer mi ngi mel ni gan gooy séntu yàkkamti ko bisimilah marhaban ak sil ñëwal lu tax yow daal yaa nu may ak yëkkatiku yaa tax ñu amuk kawe yow weeru gàmm yaa nu bégal yow weer wi ak képp ku ragal yàlla lu tax yow daal yaay weeru tànn weeru ngëneel yaa marhabaana bi ladi lam yuxlaqa nadirahu wa abadan lan yuxlaqa yaa nu andil ki nga xam ne yàlla mës na bind ku ni mel te duutu bind ku ni mel yow weeru gàmm yow yaa nu andil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yonente boobu nga nu andil nga xam ne yàlla mësta bind ku ni mel te duutu bind ku ni mel moom sallallahu wa sallam moo la cay jàngal nag laq aquulu marhaban lil muntaqa yaa man haba bihi wa alayhi taqa maa ngi lay wax ak sil jege yow yaay sama weeru soppe yaay sama weeru xarit waxtu wu nekk maa ngi lay sant yow weer wi uh-huh. maa ngi lay sant lu tax yaa xayra shahrin jaabi xayra mursalin adhabta qat an maradi wa kasali gis nga weeru weeru weeru weeru gàmm bu teroo sëñ moo uh-huh. sëñ bi ne bu ma fekkoon ma tawat damay wér est-ce que moo fekkoon ma tayel sama yaram diis nee na damay damay damay sawar nga xam ne yaa xayra sahirin jaa bi xayra mursilin yow weer wi nga xam ne yaay weer wi gën yaa dikk ci indi ki gën yonent bi gën atatal xat an maradi wa kasali ci lu dog daal bu ñëwee damay wér nga xam ne day yomb a gis audience yi day yomb cawarte gi day yomb yaa xayra sahirin jaa bi xayra mursalin mubasharan maxawta an nii kasali tayel gi ma daan tayel di diis ci yeneen weer yi weeru gàmm ñëwee damay yeesal peq sawar ndax sama weeru sopp bi sallallahu alayhi wa waaye nag andi ma xawta kasali wa wajali wa xayrati daa ismatin min xajal nga xam ne lépp lu may nuru coono ak tayel ak njaqare ak tiitaange ngëlëmte bu weeru gàmmo teroo loola day dem weeru gàmm bu ñëwee damay nekkaat keneen mu ne lu tax mu ne weeru gàmm moo feeñal sama texe saadati azharaha rabiul awali alladi huwa rabia nga xam ne weeru gàmm sëñ bi ne mooy sama traite maanaam sama traite mooy weeru gàmm weeru gàmm man mooy weer bi nga xam ne mooy sama texe mu na lu tax wa jaxal yi mawlidu xayral mursali xaalaa wartan tox ci lu taamal asali sëñ bi ne weeru gàmm andil na ma bànneex boo xam ne moo dàq muslem nee na lem di neex neex boo ko mosee di taxamtiku man bu weeru gàmm teroo li ma weer wi indil moo dàq loolu illay yaqutta muxjilaatil asali min xayri rabbin xayra baaxin mursali laka ala ya rabbi xaq du nekk maa anta bihi axaqu kon yoon weeru gàmm yow daal yaa yaayoo lépp ngëneel yeeg tedd ngay weeru gàmm woowu nag bëgg gi ko bëgg moo tax mu ni ko wax faaxa rabiihul awwali shuhur nee na weeru gàmm moo weer yëpp bi mawlidi lati badaa mashhuura li tax weeru gàmm kayo weer yëpp nee na feeñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam chahru rasulillahi bahjatu shuhur wa ramadaanu chahri atin wa tuhur sëñ bi nee na weeru gàmm moo gën weer yëpp xel yi da wuti koor mu ne nag weeru koor nag weeru boyal la ak laab waaye weeri yi gàmm moo gën ci weer yi ndax weer woowu yonent bi alayhi salaam mi ci feeñ mu fonkoon ko ba bokk ci ñi jëkk a gàmmo ci réew mi nga xam ngeen ni ki jëkk a gàmmo ginnaaw yonent bi ñuy wax ne Abu Saïd dëkkoon ci Erbel waaye réew mi soxna Asawaalo moo fi jëkk a gàmmo soxna Asawaalo moom ginnaawam xamuñu ko gën a njëkk a woote gàmmu sëñ bi ndax moom dafa waxal boppam date ko eh. woote ko ahyaytu mawlidi nabi min asasi wan qaadali fawqal muna fii talsasin kon woote naa gàmmu muy ss mi 1301 de 1883 ci laa woote gàmmu ci Mbakke nee na Mbakke laa janee jamono Mbakke laa jëkk a tagge yonente bi Mbakke laa jëkk a gàmmu waaye wan qaadali fawqal muna fii talsasin nag mooy ban demee ba 1900 1339 euh, di 1921 wan qaadali fawqal muna lu ma doon xemmee mu wammatal lu ko waaye dafa waxaat ne ah yeytu mawlida nabi min asasi uh-huh. wan qaada lii fawqal muna fii hamsasin uh-huh. mallaktu mawlida nabi min asasi kitaabati wa qaada nii min jamsasi nga xam ne andi na ci ay code hamsas 1345 eh, jamsas 1343 telsas 1339 nga xam ne lu tax fawqal muna lu ma doon wut andi na ma lu ko raw waaye nag kitaabati waxaadi lii min jëm si nga xam ne lu ma doon bëgg dama koo jël moo naa ko bind yoo xam ne mooy li ma waxoon léegi ne fi ne weeru gàmmo wu teru Sëñ Tuubaa da koy wutal xaside Sëñ Tuubaa gàmmo gu ne ak xaside xaside yi gàmmo yi ci mag mooy jësbu waaye gis nga waxoon naa la ko léegi lil Mustafa li si turaam lahu salaatu wa salaam maa xam te day am rumtu minal karam lil Mustafa al karim yi mu naa at mu jot ma génneel yonente bi tagg yu wees nga xam ne moo tax sahur rabiix yi bari ci gàmm moo wax ñu dawe bi mu am nag mawliduhu muhadamun mubaarakun muxtaramun taxsimuhu yan xatimu ala tabi taqaddumi sëñ Tuubaa nee na guddi gàmm mubaarakun lun barkeel la muazzamun lu màgg la muxtaramun lun warmaal taxsimuhu yan xatimu ala tabi taqaddumi nag mooy màggal ko dana war ci ñu ne mbooleem ku jiite mbooloo ala tabi taqaddumi waaye taxsimuhu màggal ko yan xatimu waroon na ala tabi taqaddumi ca ñu jiitu woon ku jiitu rek ku mbooloo topp war na ci yow nga màggal gàmm mu ne tax simahu bi sunnati yaquduna li jannati bi hisdiyadil minnati li moxlisin maazani màggal ko ci sunna bu ne sunna nag jërul tawil mooy lu diine nanguwul rek lu diine bañ rek mooy sunna xam nga ne naan lu diine bañ rek mooy li may wax gaa yi naan tarkul muridi maa alayhi aada tarkul muridi maa alayhi aada jërut naan aada neen lu wuteeg diine rek moo lay gën a nopp lu wuteeg diine rek buñ ko ca def kon taxsimu bi sunnati yàquwudunal jënna eh. ndaki kon buñ ko ma màggalee te màggal ko ci sunna eh. lu mu ñuy jural yàquwuduna lil janna daf nuy woomal yóbbu nuñu àjjana ndax ca la yam déedéet bihii naña ca màggal googee nag eh. bihii ziyaadul minna dool li ku xéewal ku koy moom li li muxlisin maawam ku koy sellal te di ko màggal mu jox ñu dayab gàmm fa man yoxasi mawlida nabiyina babal huda falaa naa ba xada faxtariman wa azimi xoola wax na la dayo bi jox lu ndigal li nee na ku màggal guddi gan ak jamono bi nabiyina baabul huda sunu sang yonente bi baabul huda kay buntub jub falaa yu xasabu gada kenn du la rek la yowmal xiyaam laissez passer lañ lay takkal boo maggalee gàmm boo ñëwee jàll kon faxtari man wa azimi yow moom jot nga digal yow jullit bi rawatina murid bi faxtari man na nga ko warmaal wa azimi na nga ko màggal kon yow moom ñun moom maggal gàmm danoo war moo tax sëriñ Sali waxoon ne ku koy yemaleeg bis bu ko jëkk ak bis bu ko mujj xam yow dayoo maanaam tey la gàmm suba la gàmm ak démb la woon gàmm hmm. nee na ku yamale ñaari bis yooyu ak bisub gàmm kon xam guddi ga ko jëkk kon xamoo dayob gàmm mu a kon fa kull fa man yuadim mawlida xayril baraya ahmada fa ka shahidin shahida badalan bi xayri waham xoola ku dundal guddi gàmm sëñ Tuubaa nee na yow mel nga ni ku fekke woon badar hmm. dee ci tool bi sax ahlu badar am na ci wàllu yoo xam ne 12545 ci awliya ulaahi puuritum fasu ahlu leen di faye 12545 ci puuritum fasu lañ ahlu badar lañ leen di faye hmm. léegi nag badar nga xam ne ñooñu yàlla da leen mbaa yàlla woon toppatu leen dara sëñ bi ne ku màggal guddi gàmm googu fakka shahidin shahida dafay mel ni ku dee shahid ci fan badran bi xëyri waxam ku fekke badar daayoo boobu ngay am te ku fekk badar amatoo luñ lay topp amatoo mbaa mbaa yàlla na waaye fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musharraf maalan bi xeyri saraf walaw bi qadri dirham fa innahu ko man xadar yowma xunayni wa sabar wa yowma badri wa nasar xayra wala mufahimi ku fekke bisub gàmmo sëñ Tuubaa nee na nga jël sa alal def ca maaram bi xëyri saraf def ci sa alal ci lu tug yàq nag walaw bi xadri dirhami doon ko ne benn dërëm nga am nga def ko ca gàmm fa innahu ko man xadar yow ma xonal wa sabar mel nga ne fekkee Xunayn te xamoon nañ xare Xunayn ne meloon mm-hmm. waaye nga fekkee Badar ba noppi dimbale Rasulullaay te nee na ku fekk def loolu moom ngay def mu ne nag li mawlidil muxtaari sirrun yokkutemu mm-hmm. i sawnuhu anil wara yan xatim nee na jëmmi gàmmu làmboo nag ngëneel ak tedd nga yoo xam ne sëñ Tuubaa na kenn xamul ni mu toll ba tax war na war na ci jullit ñi ñuy màggal gàmmu di ko fonk loolu taxoon mu fonk moom bi muy gàmmoo Mbàkke dem ci géej gi di gàmmu wajatu wa ci li man takrimuhu baana fi chahri mawlidi man fii baxi rabbaana ah lillaahi shukra fi chahri rabi ala du dakk hmm. egg na ci gabon bu gàmmo jotee mu am ak ganaar di wër gisul kum ko jox amul ko ko rayal ba dem ca quartier ga fekk fa soldat bu tudd Mouhamad am na gàmmo gu ko fa fekk goo xam ne seen saatu la yor muy dundal gàmmo gi dafa dem ci jaba wecc ko ko jënde koy ay kayit ñëw di taalif muqaddamatul am daa nee na bi mu ne wasiqtu bi rabbil arsi sujudi wal afi maal Moustapha wallahu li muxrijin safi eh. yonent bi daa wàcc mbaar tiim ma ànd ak Jibril lu ma bind yonente bi jox jibrilu jibrilu jox suñu borom ba ma agsi ci ko suka bi hasa bu sharatin nee na yonente bi ne kaay am naa déeg boo xam ne kenn mosu cee naan man la ko yàlla fàggul sëñ bi ne ba ma ñëwee déeg ba dama ko fenn fekk mel mel déegub noor ba ma ba siggi dafa wow koŋ ba mel ni déegub cooroor keroog jalaal jeeg jamaal ji darna ma ku ma waxul ki ma doon xamoo oh. ba mu ñibbisee ci réew mi fu mu toll noonu lay gàmmoo ba mu demee gànnaar ceen ba mu ñëwee njaareem nag eh. fukki at ak juróom yi fi def nga xam ne bi mu ñëwee rek yonente bi ñëw na fa eh. def fa fukki fan ak juróom muy fukki at ak juróom eh. booba fii ñuy wax kaddu jullikaay fi ni jullee néew yi fi la ñuy gàmmoo nga xam ne dañuy boobu garde fu yi amul waaye ay bant lañuy samp ci bunt bi ba yóbbu ko ca jullikaay bi gàmmu gu jëkk googu maam Cerno la fa yebaloon waaye jëmmi sëñ bi bu jotee day génn di wër kër gi ci biir barrière bi mu def di toog di càpp ndaay di tomb di jóg di jël sikki ji di sotti li ñuy jàng am na ci ndox yoo xam ne daana ko taatan ndoxum taw di ko tàngal kafe di ko jox ñi nga xam ne ñooy ñooy gàmmu si nga xam ne guddi goo guddi gàmm wala bisu weeru gàmmu jëmmi sëñ bi day gën a belli am na gàmm goo xam ne ci njëriñ sëñ Moor eh. soxna góornóor bi sax réer na ndax mbooloo mu bari xam dafa réer ndax mbooloo mu bari am bis boo xam ne sëñ Tuubaa nee na mbooloo mii di dëlëf dëlëf yi ak ba ma yoree sama ganaar ga ca gabong di wër gisuma ko ma ko jox ñoo yem ci man te booba fees na ba soxna si góornóor réer ñu di ko laaj soxna si góornóor bi réer nga xam ne am na ci ñam yoo xam ne amuñu ndab yu ñu ko def dañuy mel ne kuy perong rek comme xel comme ju jëkk ja fàkk taras dara rek sotti ca Cheikh Issa Dieng nag maa ngi togg yoo xam ne kenn mu na boobu dafa day taw nit ñi dugg ci jumaay njëriñ sëñ ne génn leen goo xam ne def ko ay kuréel nag fee jës bu ñii mawaahibu ñii muqaddamat ñii albarzanji yu nga xam ne jëmmi sëñ bi da ngay gis mu wàcce kaala gi mooñ mu njekk mi foo toll da koy seen te xam nga woo dax ko oh, yéju salaam ak lëndëm lu mu lëndëm lëndëm bu ne kàngree day mel ni rek day mel ni dañ faa taal lampi ba tafoor nga xam ne jalañ jalañ ak cawarte ga ah nga dégg ñu jolli xaside yi ca kaw léegi-léegi mun a dën na Cheikh Massamba keroog dañoo aj ba yàgg ñu ne salli ala lay sin safa mu ne ko Massamba ko wax loolu mu ne ko Mbakke yow mu ne ko damaa jàppoon ne keneen dama caa jiituma jaajuwaat ngir bëgg sallallahu salama nga xam ne du am sago ci yonente bi alayhi salaatu salaam nga xam ne sëñ Tuubaa daal euh, kenn xamul dimension ci ci ci ci ci ci ci ci yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne moom mooy jël day fekk ñuy jàng xasaa yi di mu jël gëtt gi di sotti ci ñoom mm-hmm. di leen ko sotti di bernde di jox ñëpp dëkk bi li muy fees fees mbooloo mi li muy bari bari mm-hmm. ñuy tagg yonent bi salaatu salaam mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu salaam ñu di ko jóor am ndaax yi mu jël xéewale di sotti nit ñi nga xam ne njéeréem la ñëpp daan gàmmoo nii ñuy wuy seen màggalu Tuuba mag ñi njéeréem ñu daan ñëw ña fa ami kër ñi amuti kër ñëpp ñëw fees penc mi nga xam ne am na ñoo xam ne seen yitt yi ñu daan am dañ ko daan denc ba gàmmu ndax lu delloo lu delloo benn laaj gàmmu loo ko ma a laaj gàmmu rek sëñ Tuubaa jox la ko loolu moo tax mu waxal boppam ne radiya anni rabihun awal bi xayri suxtin inda sin arsil waj na gàmmu weeru gàmmu moo demal boppam ba ca yàlla gàmmu moo demal boppam ba ca yàlla na ko Ahmadou Bamba man gërëm naa ko radiya anni rabihun awal bi xayri suxtin <laughs> inda silence il yi xam nga ne kon kenn gisatul daye boobu ki ni yegg kon yàlla na ko yàlla fayal Cheikhul Khadim yàlla na ko yàlla fayal sëñ moor sëñ Tuuba amul moroom yàlla na ko yàlla fayal dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne ndeysaan dañ daan jàng xasida yi benn bis mu tàggoog sagum génn boobu ñu ngi liggéey jumaay njéeréem bi mu jékki-jékki ñëw di laaj ca kër kër sëñ bi nga xam ne xamatul fu kër gi ne booba ci jali suuf yi ak xeer yi moom lay bàggal ne ana kër sëñ ba ana kër sëñ ba nga xam ne xamatul sax kër gi fi mu toll ndax àll ji am na bis ñu jàng xasida yi aju Cheikh Massamba mu jékki-jékki ne tël na ko Massamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko neen ñi jàng yàlla bég na ci ñoom nee na loolu doolu leen passif ñu ajaat mu mbàgg dugg ci biir di jël wargaweeg di jël sikki yi di jël tàndarama ji di jël ma sàmba mu ne ko Mbàkke mu neel ñii jàng saxaaba yi bég yonent bi bég na ci ñoom neen dool ma sàmba neen ñuy jàng malaaka yi bég na ci ñoom ma sàmba neen ñuy jàng yàlla saa borom nee bu leen neexee dana dem àjjana bu leen naqaree dana ci dem lépp rek ngir bëgg Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sëñ ma nee na am na bis daaj bii Daaru Xuloos di daaj Mawaahibu Naafi' bi sëñ bi nee na damay dox ci kees yi guddi dégg sëñ bi boot loxo yi di ko daajal boppam nee na ma daal di ko ma jël ko daaj loo ko mag mu jékki-jékki ne ma Massamba ma ne ko Mbàkke ko wax loolu ana foo déggee loolu mu ne ko ku baax ku tedd laa dégg mu koy waxantu ci kees yi mu ne ko jigéen xóorul xëy nii laa dégg ñu koy wayantoo nga xam ne xasaayit yi bëgg gi mu bëgg yonent bi tagg gi mu tagg bi waaye xanaa dana ci yu bashiruka baax yi bi xatti karaamatan ma in kuntu an ardil madina sa nay fun ne yëkkat xaside yi lu ma sori sori bërëbu rasulullah yàlla dana ci bégloo yonente bi na ko sa waaji tàmbaleti moo tax mu bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko dundal di santaane waxtoom yëpp gàmmo la bisam yëpp gàmmo la ne bisam yëpp doone laylatul qadar la ko naar ba doon wax ne ko yaqumu layali laylatan ba'da laylatin fa kullu layali indahu laylatul qadar moom guddeem gune gudde laylatul qadar la waaye bu nekk gàmmo la ndax foo ko fekk mi ngi tàgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam foo ko fekk mi ngi jur kon gàmmo gàngoo kilifa sëñ baa ngi noonu soppeb sëñ baa ngi noonu xaritu sëñ baa ngi noonu ki sëñ Tuubaa bëgg ci xolam a ngi noonu ki ko gënal njaboot gënal ko lépp a ngi noonu kon bésam a ngi ñëw kon faxtari man waxaati mi sëñ bi ne waggar ko warmaal ko màggal ko ku am benn dërëm def ci ndax njariñ la muy jur sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf